Colle dafa teggi natam jox jëkkëram Colle dafa teggi natam jox jëkkëram fay ci courant fay ci luyaas fay ci ndox faju ci raja dafa réew a réew a réew a réew a réew a réew ba nof ber li mu def jëndi ñaari xaram jox gawsu xëy benn ba dee mu jindi bayam jaay ba ca topp booleeg la mu yor dem ma yëngalam du ma bàyyi sa jooy yi jooy yi baaxul ci sa baay. noppil noppil noppil nijaay nag lii moom dimbali ma rek lekk ko lu ma a jox nga ne doo ko lekk dimbali ma sa biir bi am dara ah. Hmm. ma sa waay. Hmm. Eh, ay yi jaay ñi amuñu sago sax. waaw ah, dañ maa sot. dañ laa sot. <laughs> man leen léegi moo ma jaaxal bi diggu bëccëg gii ñu lay agressé nit ñi xanaa nekkuñu fa woon. <laughs> moom kay nee naa nee naa danaa am gàcc nit ñaa ngi taaw ñii tiim ma sax un man kay flash téléphone yi ma ko wax. kenn àtte wu ñu taxaw di photo. ràcc ràcc ma mel na ku nekk studio. ay waay ndi dëkk bi amatul lu waar. moom kay dañ ne doon di ma photo di ma seetaan nii agressé di ma di dóor ñu taxaw di photo di photo ak filmé. Hmm. ñoom réseaux leen bëgg def rek. internet def ko muy àdduna. photo di dugal nit ñi ci ci ci ci internet bi rek. daan ma weer ci dëkk bi de. ah ndi jaay ko kay siw nga yow moom yàqu nga moom. loolu de àtte woon maa ko gën. te agressé noo wan. jël waa ji damay dóor di dóor ba mu yàgg ma kott xar mi la xasu ci tànk xar mi dama bàyyi xar mi ah waa a waa ji summi sama tubay ci gannaaw sa tubay ma ne ma loolu ma ne ma matt dama ci xott nga di lan liggéey leer waa matt waa liggéey kii moom ban façon agresseur la kii sauvage na da ci agresseur ñoom naa ab dëmm la ah matt di la ma def bi ma mattee ma daal di féqatu bi ma féqatu foofu la sama ndomba gi daggee xam naa nag tul ji yàppatul ci la jël paaka bi nag bi mu ma ko ko paaka bi dugg tuuti ma seppiwaat paaka bi deret di sànni bi deret di sànni nag maa nii gisul ma dara. Ndiaye mënatoo dara billaay. boobu laa xam gisul ma dara. Ndiaye man dama tee laa jug ñu dem hôpital sa anémie bi moom lii ko. du ma ko dem dama ba waa génn ne da ngaa corona. corona maa day taali. yow ku feebar ne da ngaa corona. man kay man tabaski bii. Mm-hmm. tabaski bi moom ndijaay wàcc na la wax dëgg yàlla man la gën a man la gën a naqari metti na ma trop waaye nag tabaski wàcc na la ndijaay ni ma amee woon yéene jooy sa papa mi ngi ne agressé nañ ko te man li ma si gën a métti si xottu taat nee lañ ko xàmp lañ xàmp taat bi fii lañ xàmp ba pare di xol bi tamit xàmpaale ko ak poumon yi instant yii rek kese moo ko dese. mais sa papa sax agression bi dama foogoon na ay caaxaan la. mais man lii dafa mel ne lu sérieux la. man gëmuma ko woon ëdd bi mais instant gëm naa ko bu demee ba sa papa di lekk céréales te ruy nekk fii ak yàbb nga xam ne ni cas bi instant yii na. Hmm, sa papa a bëri fem nag mais da ngay muñ nga rek loolu moom mu jeex man li ma si métti mooy xaru raxu bi ñu yóbbaale rek ba loolu bettu ma sax man li ma si gën a touché ah li ma si gën a fait plaisir xam nga mooy lan essay bu deewee ma lan laay doon yow man essay lan laay doonu doonu doonu bu doon góor laa sax ma doonu jabaram ji muy man mu nekk sama jabar xanaa bëyi bëyi buñ ko reyee si jour dajam bi lan laay doonu lan ah sama pap dafa bëgg xumbaay dafa bëgg xumbaay ah dégg naa la fois passée ba mu doon dee dernière ba mu doon sukuraat nii la wax bu ma deewee ngeen defal ma dëj grand théâtre bu ko defee nag léegi imagine toi ñu def dëj ba grand théâtre ñëpp ñëw ah def Sorano daal di raxas suba si ñu def set setal su ngoonee ñu def bar poussière ah su ngoonee su ngoonee ñu def simb gaynde yooyu xam <laughs> nga wàllu seeg dafa mun woy wala si ay dëj la gën a mën a woyee imagine toi mu naan Père Ndiaye fi nga jógee yàlla non non da nga naan fi nga jëm yàlla na la gënal fi nga non non fi nga jógee yàlla na la gënal fi nga jëm yàlla xaree la si nga soor Père Ndiaye. Eh, waaye sa papa feebar na. man maa man maa ko def sax man ma fiy toog di la dolli moral. kon sa papa bu dee woon ngay xalaat. xapp nañ sama papa si taat waaye xapp nañ ko si taat. waaye xapp sama papa si taat. waaye sëñ njaboot yaa ngi gis nii. càppaacoo li ngi bënd bëri di jooy xam nga rek da la yërëm laay yaay xam ne sama papa si taat wallaay di am nañ ko métti doy monté métti doy monté benn monté kay am nañ si taat papa ah, yaay massa massa te nag ma dëbbal ci gox ba mango yi nañ ko jël baxalal ma ma naan ndax waa ji jaasi ji ma dóor daa xuur ja ñoom ke dañuy xool dañuy for jaasi mbedd mi sax def ko jaasi agression te loolu ci gën a méttee de bu ma melee ni lu rëcc ci daw waa ji daf maa dàqat ba jàpp ma dóoraa dóoru ma de waa ji daf maa kii dalaa lan di jaay baaraam bi la jël. def ko nan nijaay waxal ak man nag yow tamit ma xam jàngoro ji lan la ma faj ko. baaraam bi la jël rek fekk maa ngi sëgg. mu kii la ko. bu roox ma ay nijaay. wala dafa teggi natam jox jëkkëram fay ci courant fay ci luyaas fay ci ndox faju ci rajo dafa réew a réew a réew a réew a réew ah cappaatuli fu mu nekk joxul tey la. ah salaamaaleykum noo def. yaa ngi ci jàmm alhamdulilah naka waa kër gi alhamdulilah jàmm rek nit xaaral ma ñëw oo ma toogaay déet waay doo la raxu waaw naa ah, daa ah, ñëw nemmeeku la jërëjëf mhm. xam ne sa mbokk feebar na nga seeti ko wallaahi moog la yam wallaahi tiyaaba rek tiyaaba jërëjëf raxu raxu lii de mooy wane ne mhm. taxawaay bi nga yoroon ci koñ bi ba yaa ngi ko yor kontaan naa ci yow jërëjëf bu baax. jërëjëf Raxu. ok jërëjëf. sëñ bi ah. li may dégg ci koñ bi laa bëgg ñëw leerlu si ndax am na wala amul. Hmm. li ngay dégg ci koñ bi. Hmm. ah man pour man looloo tax nga seet si ma nii loolu kay eh, mooy eh, eh, wax ju fanaan biti la. Hmm. agresseur yi kay dañ maa jàpp wulli wulli ba ma mel naw daal maa ngi nii ne loxo baa ngi doxul bopp bi doxatul tànk yi doxatul ndigg kon li muy doy na ma seede xaw na maa yóbbu may sang may def lépp billaay lépp moo ma ko def fi mu ne xar ya boole xar yëpp yóbbu sama xar ak sama xar mën leen na mën leen na na yóbbaale sunu ay na yóbbaale sunu ay mm-hmm, mm-hmm. sam xar na yóbbaale saw ay sama xar yóbbaale sama ay wax ji jarul guddal ah. samay xar dem na man dama lay porter plainte asalaamaaleykum Père Rakhou naka ma. waaw li ma dégg ngay wax noonu maanaam dafa mel ne palante la yow sa tur ni mel si dëkk bi si wax surtout si gox bi nga nekk nii hmm? xale yeeg maire yeek paa ñëpp yow lañ àndal hmm? ñun nga xam ne suñ fëskoo bi ñuy waajee def rek yow lañ ko bëgg tuddee ku la fekk ngay porte palante miskin bii nii lu mu lay wax est-ce doo xoolaat li ngay def. ok tudd man. gawsu lañ may wax. tu es li nga wax moom daw na sama yaram trop miskin moom kenn du leen topp mer ma moo mag borom quoi mais dinaa la soxla nag parce que damay soxla jeunes yu mel ni yow ñu am xel buy nàcc parce que élection mairie yaa ngi ñëw dama bëgg nga représenté ma ci koñ bi jeunes yeeg yooyu dima conseil conseiller ak ñoom seen nga jege ma daal xam naa ne incha allah dinaa dinañ ci gën a waxtaan. sëñ bi dinaa la baal nag ndax jëmmi jëmmi kii nii dinaa la baal. kontaan naa jërëjëf moom mii de mhm. sa jarbaate te yàgg na ci kër gi. ah maa ngi ndeyam noo bokk ndey ak baay. wallaay ku baax. te nii boo ko jëlee def ko conseil ci koñ bi mu ci pour ci maire bi nga bëgg. Mhm. moom jàppal ni da am nit ku baax di nga am intellectuel. de haut niveau. intellectuel bu mag. Mhm. ndax nag mi ngi nii mi taxaw nii. intellectuel bu mag la. bu baax li ne ci bopp bi xajul sax ci réew mi. moom mii réew mi président da ko waroon a woo. waaw comme yow nag am nga xel mu woo ko avant président. Mhm. jërëjëf. waaw jërëjëf comme nag da ngaa bëgg mairie bi. di xëccoo mairie bi jàppal ni kër gi moom am nga fi ñeenti carte ci wër man sama carte d'identité mhm. moom Kole mii moom mii ak sama doom jee ci kër ga rajo xam na am na carte d'identité mhm. moom daal jàppal ni man man te man bu moo yàlla defalee jàmm matane rek wér tuuti danaa la campagnal ci koñ bi ngor wakaam yoof jàmmale mu mënti dem mhm. danaa la campagnal naa leen waa ju baax jaa ngi nii moom yow daal jàppal ni pour l'instant yow jàppal ne man def naa la sama monsieur le maire mooy sunu maire may toll wiiw gi dinaa ko yow kon la jàppale ma ci wiiw wiiw monsieur le maire wiiw jaay monsieur le jaay anam dem na dem na jarbaat baax na ci kër ndi jaay da ko mii nekkati communication traditionnelle da de baax na trop nijaay yaa communiqué lii. baax na trop ah raxu communiqué na. baax na dëgg raxu communiqué na c'est bien. nit boo nekkee ci kër da ngay mënal ñi lay jox lekk ak naan da nga leen mënal dara. jërëjëf c'est bien nijaay sant ko. jërëjëf jarbaat yomb sant ko. jërëjëf ah. Gawsu c'est bien euh, Gawsu. Gawsu wax ji rafet na traditionnel très bien. Gawsu wax ji wax ji rafet na yéene bi rafet na. wallaahi yow yéene ji nga amoon rek mooy nu nu jéggalee sa nijaay. wallaahi ndeysaan ba ba duñu woo gendarmerie. Mhm. lenn képp kayama ci metti te naqari ma ba ci sama xol bi. muy lan nijaay. waaw loolu moom metti na ma lool. waaw nijaay nag bul commencé waat di jooy nijaay nag semaine semaine yu yàlla yaa ngi koy jooy bu fi jooyaat nag di ma jooy loolu tamit nag dugalal sa tuñ yi bul bëcc na maa wax miskin. waaw nijaay nag ko doon camoufler di xool nu mu ko yow doo miskin. waaye dit na ko bàyyi bu mu mënee tëj sax ñu tëj ma waaye bu mu ne ma miskin. waa nijaay nag lu tax nag xar yi xar yi dem muy ut nu lay sauver di la wax miskin loolu dara nekku ci. bu mu ne ma miskin moo gënoon yóbbu la. may wax miskiin. yaay da ngaa naqari deret nag yow. da ngaa naqari gawsu koy wax miskiin. miskiin gi kay mu wax nañ la ko ba pare. ah gawsu bu ma nee miskiin sa ndey jëla jur miskiin la na maa moom maa nàmp yaa bi sa yaay nàmp. xanaa kon man bu ma nee miskiin sa yaay miskiin la. nan nga may tiimee sa nijaay nga mu nii nan naan ko miskiin. nijaay bàyyi sa tuñ yi ngay bët génn sa tufli di. ah war nga maa wax miskiin. al al sama yat ba. nijaay la nooyee yat. al ma yat ba man nijaay bàyyi li ngay def. ndi jaay loolu ndi jaay teyal sa bopp kii doolu doon dimbali la kii bu dul woon ak moom ñu yóbbu la ndi jaay bàyyi sa xataraay ndi jaay réglé luyaas fay ci ndox faju ci xaram jox gawsu xëy benn ba dee mu jënd bayam foofu lay xewee Sénégal 7 naa ne da am melokaan. femme bi wax lu ñaaw loo xamante ne. xamoo lu la bëgg a yëg. mu ne ku ma jaxaani xëy be paase xëy waay. man doo de la scène vous reviennent plus fous que jamais le trio magique le trio de choc qui explose les réseaux sociaux. trois véritables phénomènes, les meilleurs de leur génération, les maestros les plus puissants de la comédie, vous reviennent dans cœur saner, les docs de la scène, les plus fous de l'espace théâtral sénégalais. cey fu ñu jëm cey fu ak Saner ak Mbandumbe ak Saner ak Ñanko le golden boy du théâtre sénégalais kan moo gën a dof ci ñett ñi à suivre dans spécial Tabaski sur Sénégal 7. dama laa ñàkk fulla wala ñàkk fayda wala ñàkk jox cër ba yow respecté wu surtout yéen aawa yéen jigéen ñi nga xam ne yéen yéen pour yoon yéen yéen seen jëkkër seen boroom kër sax pour yéen ay nelawam yéen a ko moom. jënd ci ñaari xar ñu teg comme ni nga ko daan defee chaque année tabaskee benn bi benn bi ñu jaay ko def ci suñuy saf-safal. yaa tegg lii. mu ma njëkkati nga ni mbote loolu mooy. nel kuy. ah kuy. kuy. yaay sa papa dina la kuy. ray poobar yi man du ma si nekk di sonal sama bopp sax kii bu yeboo ray ko saraxa ko wala nga maye ko xool noo def ak moom. man liggéey laa xam guddi jot ma tëdd nelaw jàpp sama ñaam dugal dugal dugal dugal. papa yow nelawaan bu bon nga am ni nga nelawee baaxul dara ah. <laughs> tabaski ci fajar laa ko jël incha allah <laughs> naa la ko indil la ko indil ba ca kër ga jërëjëf ma mbokk ya ah, da ngaa amum xar pour bëgg xar mi tëbu waaw dama bëggoon xar mi tëbu ko ah, waaw loolu kay yow kay xewal la yow sama papa tëbukat bu mag baa ngi nii xanaa dégloo ko Père Ndiaye le grand tëbukat <laughs> dee xar aka da ngaa bëgg ay affaire su mee ko torop lu ne loolu baaxul dama laa bëgg rek xam ne ne a distance amul danger moo tax amul danger léegi xaar ma commencé ma daal di wala sama karaw gis nga am naa karaw <laughs> xoolal xar mi lu mu toll ah. tons xar bi maa ngi koy xont li nga may jox yow maa koy def mais li xar bi di def day tiire rek. day xar bi tëb rek. tëb mooy lan. xamoo luy tëb. alors gawsu gawsu gawsu kolle neel gawsu mu indi jaasi gaaw xar maa ngay dee ma ngay dee nee ko ma daw si daw si gaaw gawsu gawsu. la ilaha illallah. liggéey gi dama gënal ma xar yi baax nga ma indil xar mu corona kii ba mu ñëwee ci kër gi di daanu di wàccoog di di di réeku laa la xar mi dafa corona nga ba indi fi 500000 teg sa loxo nga may def nii di ma jéem a ruube lii yëpp yaa ko def waaye nag auto solution euh, da nga koy yóbbu lakkul wala da nga koy ceeb bii dafa noir et blanc xoolal déet déet c'est que léeg-léeg day dugg ci waañ wi déet xoolal nga ne ko bëy ngay tabaskee kan ci sama yumpaañ sa yumpaañ lu ma ciy wax moom lu ma ciy wax ak moom moom la lay wéyee di baal di jël décision sama ginnaaw per bëy bi laay bañ a dégg ci kër bi wax wax du bëy waxu bëy laa bëgg nga teg xar mii des ci kër gi moom laay tabaske bëy yi fu mu xam nañ jëm neel waaw neel waaw yar reew waay ko maa ngi ndax sama bopp rajaa noppi bu jooy noppi bu jooy kilifa nga kilifa da jooy noppi naa lii la la eh, eh. ah léegi daal yow per da ngay wër say turandoo ca àll wa <laughs> am xar ci boppam bu tëboo boo ne ko jàkk rek war nga koo xam man bu ma ko laalul woon sax mën naa xam ne xar mi tëbu na eh, Tange yaa ngi imaginer ñu xëy rek bëy yeeg xar yeeg yëpp rek deewandoo loolu noo koy imaginer action bu rafet la de per gu xar tas na këram per gu xar tas na këram eh, per gu seen bët yi xool fan lay xewee Sénégal set